أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk jullit yi góor ak jigéen mag ak ndaw ñoo ngi leen di nuyu yéen ñépp boole seen di leen ziyaara ànd ak di ñaan yàlla mu dolli ñu kàttan ba ñu matal weer wi ak suñu sago te mu nangul ñu ko ak mboole seen jullit ci mbaaxam ak yërmandeem ñoo ngi nekkoon démb ak yéen ci sawmul xusuus kooru borom jagle yi ñu wax ni moo di kooru saalixiina yi koor googu la nga xam ni gannaaw jàpp ci bañ a lekk bañ a naan ak sëy am na juróom benn charte yooyu matal pour mu tudd kooru saalixiina bokk na ci charte yooyu la sàmm sa bët bañ ko boyal teg ko ci lu dagadul xool ci yow bokk na ci it wattu sa làmmiñ wooral ko ci bañ a wax lu dul dëgg bañ a waat ci lu dul dëgg ak jëw ak rambaaj ak yu mel noonu ñetteelu kooru saalixiina yi moo di kafu sam'i an il isgaai ila kulli makruhin li ann kulla ma xaruma qawluhu xaruma al isgaau ilayhi ñetteelu kooru saalixiina yi mooy woral sa nopp fatt sa nopp bañ ko ubbi di dégg loo xamante ni jaaduwul dégg ndax lépp loo xam ni araam na nit génne ko ci làmmiñam noonu la araame it nopp di ko taataan di ko déglu loolu jara bàyyi xel la moo tax ci alquran yàlla yemale ko déglu lu bon ak kuy lekk riba ak di wax lu bon nee na ñoo ñaar ñoo bokk bàkkaar samaauna lil kazibi ak kaaluna li soxti lekkatu riba ak kuy déglu wax ju bon ñii ñaar ñoo bokk tabaarakallah yem benn degré bàkkaar wax na ci alquran it lawla yanhaahum rabbaani wal ahbaar an qawlihim al ithma wa aklihim soxta boobu mi wax yahud ak nasaraan seeni sëriñ seeni boroom xam-xam yàlloonte ñu tere leen ñoom lekk wax wax ju bon ñu di ko wax seen gémmiñ ak lekk riba ak déglu lu bon kon yooyu ñaari bàkkaar yu jara bàyyi xel la mu rasulullah sallam wax ne as sukuutu anil xaybati xaraam nga toog ci barab ñu di jëw yow jëwuloo wante yaa ngi toog ci banc bi yaa ngi ci grand place bi ñu di jëw ngay déglu donte waxuloo ci benn baat yéen yéen bokk bàkkaar bi soo toogee ci barab ñu di jaw ñaar nga mën def imma nga jóg dem sa yoon wala nga laawi leen mbir ni yéen nga di ngeen nekkee ne neexul yàlla neexul yéen sallallahu alayhi wasallam baaxul yéen a ngi lor seen bopp suñu la déggoo fi la alhamdu suñu la dégluwul nag nga dem sa yoon mais toog si jotaay bi ñu di jëw ngay déglu yaag ñoom yéen a bokk bàkkaar bi yonent bi nee na sallallahu alayhi wasallam al muxtaabu wal mustami' sharikaani fil ismi ki doon jëwe ak ki kay déglu ñooñu ñaar ñoo bokk bàkkaar mu tax jëwe baaxul lu yoru bàyyi xel la kon dégg ngeen chartu wooral sa nopp bañu déglu lu bon ñeenteel bi mooy jàpp ci mboole seen cër yi minal yaddi war rijili mooy loxo yi ak tànk yi wa kaful batni ak sa biir ci boppam nga fexe waxtu dog bañu dogee lu xaraam xoolal nan la ñu di xëy xëdd yendoo woor xiif ak mar jàpp ci lépp lu dagan ndox mi la dagan ak ñam bi la dagan ak soxna si la leew doom ba waxtu dog jot nga doge lu xaraam loolu tabaarakallahu borom xam-xam yi nee nañu mooy ku toogoon jënd sa terrain wuti xaalis di ko tabax di ko tabax ba mu mag nga meublé ko ba mu fees dell wëlbatiku di ko daaneel di ko màbb dañ naan kii kat ndax yaramam mi ngi ci moom waaw kon loolu tabaarakallahu lu jar a bàyyi xel la weeru koor daal bëgg nañ si nit ku woor sàmm biiram sàmm biiram lu lew di ci dugg lu lew lu dagan te néew tey soo demee ci adduna bi yépp médecin boo taxawal ak scientifique ak scientifique yi dañ naan la biir tabaarakallahu naka mu gën a wéete moo gën waaw lu jar a bàyyi xel la kon yàlla indi ñu weeru koor ñu war a génne asaka yaram lu ñam yi bare bare mënoo weesu li sa biir attan kon nañu dugal ci biir yi la mu attan su ko defee daa am kàttanu mën taxaw jaamu yàlla daa am kàttanu mën taxaw jàng alquran daa am kàttanu sëgg sëggi mais su biir bi feesee ak ñam la hawla wala quwwata illa billahi yooyu du yomb yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam kam min saa'imin wa laysa lahu min sawmihi illa al ju' wal atash ñaata nit ngay gis ñu woor amuñu seen koor lu dul xiif ak mar boroom xam-xam yi wax ni fa qiila huwa alladi yuftiru ala alxaraam kenn ni mooy ki nga xamante ni dafa yendoo xiif ak mar waxtu dog jot mu dogeelu xaraam mu xam alal ju ñu sàcc la mbaa jëfandiku jëf bu xaraam wa qiila huwa alladi yumsiku an altaami alxalaal wa yuftiru ala luxumi annaas bilxaybati wa huwa xaraam ñeneen ni mooy kii yendoo xiif ak mar wante dog kooram ak lekk deru doomu aadama yi naan seen deret te mooy jëwe te dafa xaraam wa qiila huwa alladi laa yaxfadu jawaxirahu an il afaam keneen ni mooy ki nga xam ni xëy na yendu na xiif ak mar lekkul naanul wante mi ngi boyal ay cëram cër bu nekk di xool la ko neex di dégg la ko neex di laal lu ko neex di def lu ko neex kooku tamit tabaarakallahu dog nga sa koor ñetti hypothèse yi la yépp moo war tax soo bëggee am kooru saalixiina yi da ngay ñogal gannaaw lekk lekkuloo naanoo sëyuloo nga ñogal sa mboole seen ay cër pour mën a am kooru saalixiina yi juróomeeru charte bi ci kooru saalixiina yi an laa yastaksira min altaami alxalaal waqta al iftaar bi xayth yamtaliu jawfahu moytu waxtu dog feesal sa biir ak ñam bu dagan feesal sa biir ak ñam bu dagan yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam ma min wiaayin abgadu ila allah min batnin mulia min xalaal ne amul benn mbuus te mooy estomac bi bu yàlla gën a bañ ba dam mbuus mu fees ak ñam bu dagan mbuus mu fees ak ñam bu dagal kon koor mbokk yi li koy yëkkati moo di xiifal yaram bi wàññi lekk gi tabaarakallahu tey médecin boo taxaw ni ko dafa am lu may metti lu mu lay jëkk wax na ngeen moytu lekk gu bare na ngeen moytu yenn ci boisson yi na ngeen moytu yenn ci saf-safal yi na ngeen moytu guddi yi ngeen di lekk lu bare ngeen naan ndox rek ngeen tëdd ndax ay jàngoro lay jur kon weeru koor soo yendoo woor sa estomac vide amul doole timis jot simila sala nga surchargé nga surchargé ko ak ñam mais la mu lay gaañ moo ëpp la mu lay jariñ te monti de la nga ko surchargeel ñam bu dagan la moo tax yàlla ni amul benn mbuus bu yàlla gën a bañ ba dab mbuus mu fees dell ak ñam bu dagan te mooy biir loolu tabaarakallahu lu jar a bàyyi xel la te li ñu ciy jublu mbokk yi wéetal biir bi su sa biir wéetee daf lay jox doolewu mën jaamu yàlla daf lay jox doolewu mën xeex seytaane mi nga xamante ni dafa daw ci sa deret ni deret di dawee à la lueur à la lumière du sang à la vitesse du sang soo lekkee ba suur nan ba mandi xam lu mu lay jëral bëgg bëgg sëy da ngay bëgg noos soo wooree nag soo xiifee maree dafa damm loolu ci sa yaram kon tabarakallahu moo tax yàlla ni ak siyaamu junnatun koor daal kiiraay la diggante nit ak bànneexu bakkanam diggante nit ak mooy yàlla lépp loo xamante ni yoonu mooy yàlla la koor daf koy damm sa diggante ak moom moo tax du dugg safara loolu tabarakallahu lu jar a bàyyi xel la ruuxu sawmi kon wa sirruhu tadifu alquwa allati hiya wasailu shaytan fi lawdi ila lchar ruuxu koor sirru koor mbokk yi mooy wéetal biir bi bi nga xamante ni su wéetee su amee doole mooy yoon wi seytaane di jaar pour def loolu lu ne lu neexul yàlla bokk na it ci teggin ci koor gi min al adab an laa yukthira nawma bin nahaar xatta yaxussa biljuci wal atash wa yastashcira duxfa al quwa bokk na ci teggin bañ a barelloo di nelaw yenn koor gi yépp bugguloo yëg mettit bugguloo yëg coono loolu soo bëggee am kooru saalixiina yi duñu ko nangu kooru saalixiina yi ci biir xiif gi ak mar gi ci ngay dem liggéey yi si ngay ñaqi si ngay dara sa doole di yëg ni tey jii kat sama biir ñaq bi yépp dama àndaale koor loolu lañu si bëgg tabaarakallaahu ngir dama ëpp ab dayoo juróom benneelu cër ci kooru saalixiina yi an yakuna qalbuhu baada al iftaar muallaqan muttariban bayna al xawfi wa raja waxtu woo dee dog yaa ngi yendoo xiif yaa ngi yendoo mar yaa ngi yendoo xeex ak sa bànneex bakkan waxtu woo dee dog nag ak li metti boobu yépp bul naagu de bul ni mu ko yàlla nangul na ma ko déedéet nga nekk bayna al xawfi wa raja diggante tiit ak yaakaar moo koor gi ak coono gi ma daj yépp su ko yàlla nanguwul fan laa jëm ak yaakaar nan yàlla de yërmaneem gu yaa gi amaate na nangul na ma ko jégal na ma samay bàkkaar di nga diggante boobu moo war si bopp xeetu jaamu yàlla soo jullee soo demee màkk soo génnee azaka soo génnee ay sarax bul am benn garantie ni yàlla nangu na ko kon nga tudd ku naagu da nga naan yàlla daal jox naa liggéey bi soo ko nangoo de sa jaam bi dana dana sant yàlla soo ko nangul xamam fan laa jëm mais nit ku def sa jëf ba noppi am garanti tegaloo ko fenn yàlla nangul na ma ko la hawla quwwata illa billahi al-aliyyil azim loolu mooy naagu mooy yéem sa jëf te nit warul yéem jëfam loolu jar a bàyyi xel la moo tax boroom xam-xam bi ni soo xëyee nag yendoo woor ba ngoon jot lekkuloo naanuloo sëyuloo nga laaj ko boroom xam-xam yi ñun la kenn gënu la woor wante kooku mooy chartu zahir ci koor chartu zahir ci koor mooy lekkuloo naanuloo sëyuloo chartu baatin nag day boole chartu zahir boole kaag mboole seen cër yi àndoo nga wooral leen te chartu baatin mbokk yi ca la yàllay xool pour nangu sa koor innama yataqabbalu llahu min almuttaqin ña yàllay nangul mooy ñak ragal ragal yàlla fu mu nekk ci nit ci xol lay nekk kon yàlla xol lay xool pour mën la nangul sa koor yi mbokk yi mooy aju woon ci kooru saalixiina yi yal nañu yàlla xiir ci jaar ci yoon woowu de te mu nangul ñëpp seen koor te yàlla xiir ñu ci lu mu gërëm allahuma jacal jamcana hada jamcan marxuman wa tafarruqana min bacdihi tafarruqan macsuuman wala tajcal fiina wala macana shaqiyan wala matruudan wala maxruuman birahmatika ya arxama arraximin
ñoo ngi leen di yeesalaat julli naafila bi nga xam ni yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam képp koo xam ni guddi laylatul qadri julli na si ñaari raka raka bu ci nekk gannaaw alfaatixa nga jàng qul huwa allahu ahadun juróom-ñaari yoon boo sëlmalee wax astaghfirullah wa atuubu ilayhi juróom-ñaar fukki yoon yàlla maa ngi laa jéggalu maa ngi laa tuubal julli la goo xam ni képp ku ko julli fa nga toog yàlla subhaanahu wa taala dina la jéggal sa bàkkaar jéggal sa ñaari wayjur yebal malaaka sa aljanna mu tabaxal la fa kër bu ràññeeku malaaka di la rooseel garab yi te doo génn àdduna te teguloo sa bët ci boobu lay ngëneel yàlla bu mu ump jullit moo waral saxaaba yu tedd yeeg ulamaa u saalixuuna yi di ko naafila ci guddi weeru koor gi yépp di ci yéene màggal laylatul qadri ñoo ngi leen koy dénkuwaat ànd ak di ñaan yàlla mu dolli ñu kàttan ba ñu matal weer wi ak suñu sago te mu nangul ñu ko ak mboole seen jullit ci mbaaxam ak yërmandeem subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk jullit yi góor ak jigéen mag ak ndaw ñoo ngi leen di nuyu yéen ñépp boole seen ànd ak di leen ziyaara di ñaan yàlla mu dolli ñu kàttan ba ñu matal weer wi ak suñu sago te mu nangul ñu ko ak mboole seen jullit ci mbaaxam ak yërmandeem tey sunu waxtaan mi ngi jëm ci sawmul xawaas moo di kooru jagle yi wala kooru boroom jagle yi koor dañu wax ni ñetti xeetu koor moo am wala ñetti degré koor ñetti daraja koor mu di sawmul umum sawmul xusuus ak sawmu xusuusil xusuus sawmul umum moo di kooru la ñëpp le commun du mortel sawmul xusuus di kooru boroom jagle yi wa sawmu xusuusil xusuus si biir borom jagle yi yeneen borom jagle seen biir waaw yooyu borom cër lañu kon dañu leen ko seet benn par benn ba ñu xam ñun fan lañu war a mën a féete ci biir ñetti koor yooyu sawmul xusuus fa huwa kaful batni wal farji an qadaai shahwati kooru la ñëpp mooy ki nga xam ni jàpp na ni su lekkulee naanul sëyul kenn gënu ko wor sañ na ko ndax loolu sharia bi wax wante bay xedi sallallahu alayhi wa sallam nee na kam min saaimin wa laysa lahu min sawmihi illa al juu wal atash lan moo waral sallallahu alayhi wa sallam wax ni am na ñoo xamante ni bare nañu danañu woor te am ñu seen koor lu dul xiif ak mar su fekkonte ni koor bàyyi lekk rek la ak naan ak sëy mu ni am na ñu bare ñuy woor te am ñu seen koor lu dul xiif ak mar koor war nga dégg ne am na beneen étape bu ñu war romb lu weesul ak xiif ak mar te mooy sawmu xusuusil xusuus sawmul xusuus fa huwa kafu sami والبصر واللسان واليد والرجل والجوارح عن الأثام mooy koor bi nga xam ni gannaaw jàpp ci bañ a lekk bañ a naan bañ a sëy da ngay wooral sa nopp bañ a dégg lu bon wooral sa bët wooral sa làmmiñ wooral say loxo ak say tànk ak sa cër yépp kooku mooy kooru boroom jagle yi saw bu xusuus yi xusuus nag mooy borom jagle yi si biir borom jagle yi mooy sawmul qalbi kooru xol ñoo xamante ni gannaaw bañ a lekk ak naan ak sëy wooral seeni cër yëpp mais dañu wooral seen xol ba seen xol dañ ko aj ci yàlla ak alaxira su xol bi teggee ko ci yàlla ak alaxira rek pour ñoom dog nañu kooku nag rutbatul anbiya yi wasaalixina wal muqarrabina mooy kooru yonent yi alayhim salaam ak saalixiina yi ak muqarrabina yi yàlla jël jegeel leen boppam ak siddiqina yi yàlla ñu yàlla tas seen barke nit du ko sax jéem a essayé ku yàlla cërlu boobu cër mënuloo ko kon fa tabarakallahu sunu koor ñun dañu koy xool ci kooru saalixiina yi mooy sawmul xusuus kooru jagle yi mooy bañ a lekk bañ a naan bañ a sëy waral say cër nag koor googu la ñu wax ni juróom benn mbir juróom benn charte mooy taxaw pour nga mën a am kooru saalixiina yi te ku ci nekk war na ci mën a góorgóorlu lan moo ci juróom benn yooyu al awal غض البصر وكفه عن الاتساع في النظر إلى كل ما يضم ويكره ساني سبت bañ ko jël boyal ko teg ko ci lu la neex loo xamante ni daganul si yow nga war di ko xool ak lépp loo xamante ni mën na fabbi sa xol ba nga fàtte tudd yàlla ak jaamu yàlla xol bi ak bët bi bët bi soo ko jëlee boyal ko ci kaw jigéen te daganu la yaa ngi fabi sa koor mais sa xolit soo toogee sa xol fa nga waroon xalaate yàlla tudd fa yàlla jàng fa alquran teewlu màggaayu yàlla ak ay karaamam ngay xalaat am esprit libéral lu la neex xalaat na mu la neexe loolu tabarakallahu mën na yàq sa koor te loolu bokk na ci ah su fekkee ni sa bët teguloo ko sa kaw soxna tegaloo ko ci kaw góor tegaloo ko ci kaw jigéen mais dugg sa biir néeg taal sa film di seetaan film yoo xamante ni jaaduwul nga di ko xool yaa ki nekk ci mbedd mi booyal sa bët yéena yam képp kon yooyu jar a bàyyi xel la yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam an nadratu sahm masmuum min sihaami iblis laanahu allah faman tarakaha xawfan min allah aataahu allah azza wa jalla imaanan yajidu xalaawatahu fi qalbihi nee na xoole bët xool xool lu jaaduwul xool nee na benn fett la ci fett iblis bu ñu posone moo tax bët moo bon ñaan yàlla musal la ci bët bët bu aay ndax bët mën na xool loolu yàqu xoolal nag ñu koy dox doxam benn waay nekk fu sore tabaarakallaahu teg la bëtam te yëguloo ko di la xool di la topp di la simmi di la dévisager yooyu lu garaaw la mu ni bët xoole benn fett la ci fettu iblis bu ñu def posan fett rek bon na mais fett bu ànd ak posan nan la war a mel moo tax bët baaxul xoole baaxul waaw mu ni képp koo xam ni nag bàyyi nga xool lu jaaduwul xool te def ko ngir ragal yàlla ak gëm yàlla tabaarakallahu nee na yàlla dana la wërsëgal tàqamtiku caf ko liimaan ci sa biir xol yoonu tarbiya ngoog yoonu am yàlla ak imaan nee na soo bàyyee xool lu jaaduwul xool yàlla moo lay yekkeewal ngay tàqamtiku caf ko imaan sa biir xol waaw yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam xamsun yuftirna saaim alkisbu walxaybatu wannamimatu walyaminu alkaadiba wannadaru bishahwati nee na juróomi ngi yoo xamante ni dafa dog kooru aji woor yan la alkisbu ñàkk wax dëgg yendoo woor xiif ak mar sëyuloo amuloo benn bànneex wante foo toog tabaarakallaahu ba ngoon jot doo wax benn baatu dëgg sa koor yàqu na wala xëybatu yendoo woor yendoo jëw an namima yendoo woor yendoo rambaaj rambaaj mooy toog ci barab ay gars yi di waxtaan seen waxtaan yow nga mel na bokkuloo ci ubbi say nopp yokk volume bi di déglu laata ñu pare nga jóg dem sa ñen ñeneen beneen beneen wàll ni leen man de béréb sàngam laa jóge gars yi nee nañu nangam ak nangam ak nangam ci anamu yàq ay nit ak boole ak fé ay féewale ay mbooloo loolu mooy nambaaj ku yendoo woor yendoo rambaaj sa koor dog na ak lan alyaminul kaadiba yendoo woor moo xam jaaykat nga wala jëndkat nga wala ouvrier nga yàkk nga seqanteel liggéey nga di waat te li ngay waat teguloo ko ci dëgg mooy yendoo nga xiif yendoo nga mar ak coono te amuloo koor wante bi si gën a garaaw an nadaru bi shahwatin mooy xoole boo xamante ni da nga see jëlee bànneex kon juróomi ngi yoo xamante ni soo yendoo woor xiif ak mar ak ñàkk sëy ba noppi sàmmontewuloo ak ñoom xamal ni da nga yendoo xiif ak mar te amuloo koor ñaareelu koor ci kooru saalixiina yi moo di xifdu lisaan an ilhadiyaan walkiisi walxayba wannamima والفحش والجفاء والخصم والمراء وإلزامه السكوت وشغله بذكر الله وتلاوة القرآن فهذا صوم اللسان ورر سلامين ورر لامين موي فاتي سلامين به دو وخ وخ يو امول فائده وخ يو امول فول امول فائده دو تي ام بن تيابا ngorent lamiso ak lan ñak wax deug ak jëw ak rambaaj yuuxu sa kaw werante xuloo tàccu yuuxu yoo xamante ni amul benn njariñ tabarakallahu ak xuloo wax yu ñaaw nee na kon sa koor googu sa làmmiñ da nga koy yar ci noppi soo ko naree ubbi rek sa làmmiñ fas yéene wax na nga tudd yàlla na nga jàng alquran na nga digle lu baax na nga tere lu bon nit bala muy wax day réfléchir su la wóoree ni soo naree ubbi sa làmmiñ la nga nar wax la nga nar wax toj toj lay nekk wallahi gëmul yàlla nga noppi nit bisimillahi aousubillahi shaitan rajim nga tudd yàlla nga toog mais soo waxee rek am na ñu mel noonu ñoo xamante ne fu ñu waxee rek ad aduna tukki la hawla wala quwata illa billah loolu koor ak lu dul koor a ci yem nit dafa war bala muy wax mu xalaat seet settantal ndax wax fett la su xasee génn moomatuloo ko xamoo fan lay dal loolu jara bàyyi xel la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ci atte boobu le innama sawmu junnatun fa ida ahadukum saim fala yarfus wala yajhal wa in imra'un qatalahu aw shatamu falyaqul inni saimun inni saimun ne na ngeen xam ni koor kiiraay la diggante nit ak mbugalu yàlla ak dugg safara ne su kenn ci yeen wooree ngalawaay na moytu wax ju bon wax ju ñaaw wax ju ko dul bindil tuyaaba ne su la nit indilee wax joo xamante ni mën na la indil coow teel ka dànkaafu ni ko ay bokk man dama woor de man dama woor yow it da nga woor de bàyyi sa xel sa bopp loolu tabaarakallahu mën na la suturaal ba yu bare doo ci dugg muy nettali xadis bu tedd si jamono yonte bi sallallahu alayhi wa sallam ñaari soxna dañu xëy xëdd ni ñëpp di xëdde ba naaj bi tàng ñu xëy kenn ki ñëw di seeti morom ma toog sa bund kër ga teg seen bang di waxtaan xanaa dañuy dàqe koor di waxtaan ba tàkkusaani suuf ñoom ñaari ñëpp am bettit am malaise ba mbokk yi jaaxle ñu ne salaa sallam di ko laaj ndax mën nañu dog seen koor ndax malaise bi ñu am moom yàlla xamal na ko lépp mu yónnee ne ku nekk na am benn ndab benn lekkat na ko ne wàccu fii wàccu fii ba ñu wàccoo sa lekkat ya muy deret ak ay lumbu yàpp ay dagitu yàpp ñu daw indil ko affaire bi mu ni ñii ñaar dañu xëy xëdd ni ko yàlla santaane yendu ci deru gor ñi di leen jëw di leen jëw lañ doon lekk seen derbaa ngi nii deret jaa ngi nii lii moo tax tabaarakallaahu seen koor mel nii lii mbokk yi ku ko dégg mu di xadis bu wér ci jamono yonente bi sallallahu alayhi wa sallam war nga bàyyi sa xel ci wàllu jëw képp ku toog tey sa deru moroom da ca wax jàppal ni yaa ngi dagg yàppam ak fourchette ak paaka di lekk di sex di naan képp ku jëw nit ñoo ngi lay xeri deretam nga di ko naan ndax soo nekkee nit normal su la joxe deret daa ko naan deretu nit ndax su la daggalee yàppam daa ko lekk kon soo ko dee jëw yaa ngi mel na ku ñu saafal yàppam nga di ko lekk ku ñu jox deretam nga di ko naan moo war tax nit war a maanu ci wàllu googu yonent bi ni sallallahu alayhi wa sallam ida asbaxa ibnu aadama fa inna al aadaa kulluha tastakfi lisan fa taqul ittaqi allaha fiina فإنما نحن إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا ne doomu adama su yewoo suba cër yëpp ñu àndandoo di musul ci làmmiñ cër yëpp bët yi bakkan yi nopp yi loxo yi gémmiñ yi xol bi nan awee làmmiñ làmmiñ jubalal te ragal yàlla yow soo jubalee ñun ñëpp ñu jubal soo yàqulee ñun ñëpp ñu yàqu xoolal bokk yi sooy dox ci bërëb foo mën ci nekk lu sa bët xool daj salaam ñu koy jëkk tudd lu sa xol xel xalaat lu jaadu ak lu jaadul salaam yi njëkk njëkk tudd lu sa xol laal fekkee sa loxo laal fekkee amuloo bët sax booy gisee salaam yi dana ko tudd ak sa tànk lu mu laal kon làmmiñ boobu le cër yëpp ay àndoo di musulu ci moom woy woy dimbali ñu nga di wax lu baax ndax soo jubalee ñun ñëpp nga yóbbaale wante soo yàqulee ñun ñëpp nga yo- nga yóbbaale yeneen ci bi ni sallallahu alayhi wa sallam لا يستقيم ايمان عبد حتى تستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه نينا كين تي يين دو اغ تي نغم يالا دغ دغ دغ ndaré xolam jubul té xol bi mënul jub mukk ndaré lamiñ jubul tabarakallah neena kenn ci yeen jaaduwul tabarakallah mu dej kaso benn cëram ba mu des làmmiñ làmmiñ kott moo yeeyoo dugal kaso kaso prison ci biir gémmiñ gi ba nekk ba nañ ko làq ci biir ni ko yow suñ laa ubbi pour nga wax rek yàlla na fekk ngay wax lu baax ndax soo waxee lu baax ñu bind ay xasanaat jëmale la ko soo waxee safaan tamit ay ay bàkkaar la la lay gàddul kon làmmiñ boobu nee na moom kott moo le- yelloo dugg biir kaso ku am kaso nag yore sa caabi bopp soo ko dee ubbi na la wóor ni li nga wax na la leer daa ci am tuyaaba daa si ñoddi yiw daa si digle lu baax daa si laawe biir doomu aadama daa si tegtal ku ku réeroon nga teg ko ci yoon loolu tabarakallahu moo jaadu si ñun benn saxaaba ñëw si yaa rasulallah ni que yow yonent bu tedd bi ndax jàpp nga ne bis penc ma danañ jàppe sunu làmmiñ yu ndaw yi li li muy wax mun ko lan nga yaakaar ne moo dugal ñu safara lu seen làmmiñ safara la fa ëpp si doomu aadama yi seen làmmiñ leen dugal wax loo warul wax wàcc lu dul dëgg ak jëw ak wax lu dul dëgg ak rambaaj làmmiñ ñi la dugal kon mbokk yu tedd yi lii mooy ñaari tomb ci sawmu saalixiina insha allahu taala suñu yàlla may fe ëllëg fekke ñu mottal li si des yan nañu yàlla may dégg ak topp allahuma jacal jamcana hada jamcan marxuman wa tafarruqana min bacdihi tafarruqan macsuman ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين ñoo ngi leen di yeesalaat julli naafile bi nga xam ni yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam képp koo xam ni guddi laylatul qadri julli na si ñaari raka raka bu ci nekk gannaaw alfaatixa nga jàng qul huwa allahu ahadun juróom ñaari yoon boo sëlmalee wax astaghfirullah wa atuubu ilayhi juróom ñaar fukki yoon yàlla maa ngi laa jéggalu maa ngi laa tuubal julli la goo xam ni képp ku ko julli fa nga toog yàlla subhaanahu wa taala dina la jéggal sa bàkkaar jéggal sa ñaari wayjur yebal malaaka sa aljanna mu tabaxal la fa kër bu ràññeeku malaaka di la rooseel garab yi te doo génn àdduna te teguloo sa bët ci boobu lay ngëneel yàlla bu mu ump jullit moo waral saxaaba yu tedd yeeg ulama saalixuuna yi di ko naafila ci guddi weeru koor gi yépp di ci yéene màggal laylatul qadri ñoo ngi leen koy dénkuwaat ànd ak di ñaan yàlla mu dolli ñu kàttan ba ñu matal weer wi ak suñu sago te mu nangul ñu ko ak mboole seen jullit ci mbaaxam ak yërmandeem subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته